للاسناد ماي بوني وجه جودي جودب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمنا أي بونيفيس يبري يبري فاين غير خامه بونيفيس بأمغكو لين فدق نفخ غور غورلو جيكو جيكو سيدنا محمد يوي صلى الله عليه وسلم نحمم لولا بق ndax mo wax ni inma bu'istu li utammima makarimal akhlaq man dal li tax yàlla yónni ma ci yéen moy ma fexe dal ba sol ci yéen jikko yi rafet yi ndax legi wax nañu ku tabela neena budé amna lila yàlla dénk ba gor gorlu nga ci tabe yow it nga nek ko xamné ku tabe nga dimbali ci say mbokk nga dimbali ci képp koo xam ne yàlla dogal na nga war ko dimbali nag ci jëm ngir jëmmi yàlla wala mbind mii nga xam ne moo ci topp nee na ñaari jikko ngi si yoo xam ne nga fexe góorgóorlu ba mel melokaan yooyu moo di ni wa qawluhu layyinun moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax gu jàppandi la yow it na nga góorgóorlu ba fi ngay wax sa wax rafet bul wax lu ñagas bul wax lu bon bul wax it loo xam ne tamit dana sonnal sa mbokku doomu aadama kon nag wa qawluhu layyinun nee na sa kàddu daal na nekk ko kàddu goo xam ne gu jàppani sa biir kër ci sa bureau ci say employé bu dee yore nga ay employé say mbindaan bu dee yore nga ay mbindaan walla sa boroom kër ak sa borom ak sa soxna ak mboolem ñi nga xam ne dangay jëfalanteeg ñoom ci àdduna donte ne ñooñu yëkkati nañu ay kàddu yu ñagas yow daal góor góorgóorlul ba nga wax wax ju nooy nga mel ni koo xam ne dafa woor nen jàng nañu ci melokaanu koor nit bu dikkee ci yow fekk yaa ngi woor mu bëgg wax ak yow wax joo xam ne tegganiwul wax ju ñaaw la wax ko ah inni saa imun man de ku woor laa du ma jëw du ma xaste duma ma wax it lu bon inni saa imun nga góorgóorlu nga jéem fi nga nekk nga wax wax ju yiw nga wax jàmm lu dul jàmm doon ne andi nañ ko ci yow yow nga delloo jàmm idfa billati hiya ahsan nee lii jikko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yow nga góor góorlu ba mel melokaan googu nee na beneen jikko bi wa filuhu hasanun nee na moom sallallahu alayhi wa jëf yëpp rafet yow it ne nga def auto évaluation sa bop nga def autocritique sa bop nga xol sa bop nga def li nga xam moy régler nga def inventaire nga xol li ci bax ak lu ci bon ni mu mel bu fekkee ni lu bax li mo gëna bari nga jéem gor gor lu mbax ni te nga sax ci bu dee it ñaawteef gi moo ëpp nga jéem a góorgóorlu génn ci ndànk-ndànk ba nga nekkat ku baax nee na ndax mbaax rek mooy njëriñ adduna ak àllaaxira bu nit baaxee fu mu dem fu ne dañ koy bëgg dañ ko fay teral dañ ko fay tamit jox cër bu dee baax ba dee fekk ko ci mu dem ëllëg yowmal qiyaamati foofu nag lay xamee ni baax di jëriñ ndax nit bu génnee àdduna ñetti mbir rek ñoo koy gunge sa alal ak say mbokk ak say jëf boo demee ba ca bàmmeel ñu tëral ko nee na alal ji dellu mbokk mi tamit dellu mu des moom rek ak ay jëfam bu dee ay jëf yu baax la نين الحمد لله بودي ينن لي سميت يال نان الله موسل نك موتاخ يالا ني فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره كون نك وقوله لين وفعله حسن من اقتدى بهما képp ko xamne roy nga yonti yalla muhammad yi la shakka yastaqim ne na sikki sak amul koku dana jub te yi ay mbiram dana bax eskay ne na na ñaari mbir yi na nek suñu yobal dal ne ba at mi di ñew ñu set lal ban resultat la am nee na duñ ci am nak luddul jam jàmm na lu yiw lula mbax may lu la yar may lu la teraanga may nee na loolu da nga koy muurloo rek nee na nag eh, safaan gi nag lu mu la jox nee na ñàkk yar lu mu la jox nee na loo ci mun a am nee na yàgg-yàgg dinga nga teqali ko ak moom ba mu set ndax jikko ji kon nag ceer Ceerno nee na nañu góor góorgóorlu suñuy bopp nañu góorlu suñu diine nañu góorlu suñu diggante suñu digënté suñu biir kenn ku ne ci ñun nga jéem rafetal sa digën sa sa côté ni ko yonenti yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waxe won woon sil man qadaaka wa'd man haramaka wa'fu man zalamaka wa ahsin ila man asaa ilayk kula dok yo jokko ngir jëmmi yalla ku yore nga jéem jot ci mom mu bañ yow am nga nga upp ko may ko du la yàqal dara kepp ko xam nak dafa bon ci yow yow nak na nga bax ci mom kula togn nga jéggal ko cher neena bo jëfé ni rek neena di nga noppalu neena nak la ci dimbali il faut nga setal sa xol nee na mboolem li nga xam jikko yi bañeel la mbañeel la wala mboolem li nga xam mu moy ñaaw ndortu wala mboolem li nga xam ne la nga fexé dal ba ko fóot ko ci sa bir xol nga bëgg ñépp ku la bëgg nga bëgg ko ku bëggul nga bëgg ko ku bax nga bëgg ko ku bon nga bëgg ko jullit bi nga bëgg ko don tane yéfer bi sax bëgg ko néna jamm rek ga ci am nee na cee suñu sëriñ suñu maam maam saydunu saidu nur taal rahmatullahi alayhi daan na wax ni boo yéene ñépp jàmm donte ne nit ñi amuñu jàmm yow moom di nga am jàmm nee na bëri na fi mu koy misaale nee na nga yéene sa mbokk yére boo xam ne yére wurus la amul yére wurus waaye am na yére mbasin saa yoo ko gisee rek mu sol yére boobu da ngay kontaan ndax yow li ko yéene woon moo ëppoon loolu waaye bëggaloo ko daal yàlla may ko avion saa yu avion bi yéegee ne da ngay am problème ne da ngay feebar de wala yaasu billah nee na kon nag noppal sa bopp nga yéene ñépp jàmm nga dugg daa'iratul imaan نون لكو ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم وخيني نين لا يؤمن أحدكم